limu ndongo yi xale jigéen yi ñoo ci ëpp ndax ñoom eh, dinañu constituer boo ko jëlee ci pourcentage bi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar eh, ci pourcentage. jot nañu eh, information yi ci ci ci yeneen gox yi mooy académie yeneen yi. que ñoom ñëpp lu ñu signalé mooy yëpp yemb na ñu ngi def seen examen sans problème tout se passe bien. waa xam nga ñun dund nañ fi ay atu Covid xam nga Covid bi ci biir nawet lañ ko defoon foogoon nañ ne sax du am mu am yàlla suturaal ñu ñu def suñuy examen ren tamit amoon na ay problème donc ci suñu société bi ci suñu Sénégal bi amoon na ay problème ñëpp tiit yaakaar ne euh, examen yi dinañ leen. Euh, randal mais loolu yëpp amul loolu dafa wane ne euh, ñun suñu système éducatif ak ñi ko ŋànk dañu dañu dañu euh, dañu am loo xam ne dañ koy dund ba nga xam ne chaque fois bu ñu demee ba am ay problème rek dinañu wut jumtuwaay yëpp yi nga xam dinañu mën a tax ñu continuer def liggéey bi ni mu waree e au non du ministre de l'éducation nationale damay sant acteurs yëpp mooy niveau déconcentré bi commencé par ci gouverneur ak préfet ak collectivité territoriale yi IA yi IF yi jàngalekat yi parce que bu surveillant amul école examen du am donc di gërëm ñëpp di gërëm parents d'élèves yi ak élèves yi surtout di leen souhaiter bonne chance